alaikum, boki téléspectateurs, yi safo di setan sen télévision Reol TV ñu ngi leen di nuyu ci wi rafet di leen wax ni li ñepp doon li ñepp doon xaar fait. muy émission sama tailleur andi ci kan télé bu mag bi télé bi askan bi di télé bi nga ni ñew indi nous jël gi bëgg ko ci seen TV du def lu dul and ak présenter émission bi muy kan atelier leen ñi nga xamni ni seen dagg jub na tabaar fa kàlla macha allah ñi nga xamni do leen jox ti ci mukk ñu jël ko garder ko dedet wala ñu échanger ko defuñu ñu nonu motax tay dañ leen di setti ñi nga xamni ñoo di xewal TV ñew ba ci sa bir atelier ni leen kat ah émission baa ngi émission bu mo ci ayib bi ba tax na képp koo xam ne bëgg nga participer ci suñuy émission mën nga dugg ci service commercial bi nga woote ci numéro bii ma leen di jox muy 76 594 49 40 ma fàttali leen ko 76. 594 49 40 douma ma faral di bàyyi lenn muy lan xoolal bés boo gis day la bés baa muy fay bés te Dakar ku ne moo la màccloo say baaraam Xéweul TV nag jambolo na Dakar askanu Thiès yi askanu Sénégal njaay te Olof Njaay danaan loxo bu sens ca kala mbéj Xéweul TV mbéj na askanu waa Thiès kon boog tailleur yi xaar man mii di lay sëy sëy Médina Thiès Ma fas am ak ci yéen émission bu muy lan sama tailleur kon dekk maa ngi leen di jox dox daje bientôt incha allah jërë ngeen jëf mbokk téléspectateur ci ànd bi nga xamante ne yéen a ngi koy ànd ak xewal TV te safar ko saa su nekk ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar xewal TV indi leen lu bees tàkk mooy seen émission ma société ma société ngeen koy am lee les lundis les mercredis et les samedis di ci ànd ak seen sista Khadija Sall bu Serigne Babacar si su ma nee ma société nag dafa yaatu loolu ndax ma société képp ku nekk ci société bi rek daf la intéressé que ça soit nekk ca mécanique ba que ça soit que nekk ca école ba que ça soit arrêt jakataay bàyyi dugg dafa génne lu mbóoti di leen ko tegal ci biir taabu bi képp nga xamante ni nag bëgg na sponsoriser suñu émission ma société mën nga ñu woo ci suñu numéro téléphone bi 76 594 49 40 76 594 49 40 Xeweul TV daal moo lay indi lu bees tàkk muy ma société.